te ay xale yu ndaw lañ nga libéré leen duma na mako dina ko def de mais bu nekkon temps ablay wad mom ablay wad dina ko def ndax cër bu mu joxe mais dama ne li xew ci réew mi japp tej japp tej japp tej toroxal ci biir kaso loolu yépp amul kenn ku yëkkati kaddu ci kilifa yi ne leen nag lii doy na moo tax ñu doon wax na dañuy namm maam Abdoul Aziz baax Dabakh taabu syndicat yeeg mbir yi tànge da daan wax ca pénc ma zawiya ba la doon toog woote nañ ma limal yenn autorité yi ñu ciy dégg dina am ñu ma leen ci déggal léegi te nag ñépp xam nañ li waral réew mi nekk ci tension ñépp xam nañ ko bëgg troisième mandat rek moo waral lépp Sonko du bokk par tous les moyens on va prendre le risque ñun Macron moo war a dem di yedd maa ngi lire article euh, Africa di yedd Macky Sall di ko xam ne ko waroo bokk ci élection troisième ba Washington di ko wax te ñu am ñu ay kilifa yoo xam ne bu ñu toogoon dajale wax ak moom ne ko hé sa troisième mandat bi teg ko ci suuf parce que sa kàddu jiitu na la kon xam nga gars nu ñu def ñu àndandoo déglu 2011 moom Macky Sall ba mu toogee di wax. ci mandat eh bien c'est la majorité qui veut que le président en tout cas se présente. Je pense que cette question est claire comme l'eau de roche. Si on s'en tient à ce que dit la constitution sénégalaise, adoptée en 2001 à travers un référendum très hautement plébiscité aucun président de la République élu ne peut faire l'objet de plus d'un mandat, de deux mandats. Donc le président est élu pour une fois et le mandat est renouvelable une fois. Donc le président Wada a été élu en 2000. En 2000, il a été réélu en 2007. Donc il n'a pas la possibilité d'avoir un troisième mandat. Tout le reste, c'est de la spéculation intellectuelle et politicienne. Il le sait et il l'a dit lui-même à plusieurs reprises. D'abord, il l'a dit euh, en 2007, au lendemain de sa réélection, en disant que je ne peux plus être candidat, j'ai corsé la Constitution et je l'ai bloqué à deux mandats. Donc, je cherche un successeur que je n'ai pas encore trouvé. C'est clair qu'il ne peut pas être candidat. La preuve aux Sénégalais qu'ils peuvent décider en toute indépendance. Moi, je ne peux pas préjuger de ce qu'ils feront. Ce que je sais, par contre, c'est qu'ils sont conscients de l'impact de la décision qu'ils prendront. Aujourd'hui, euh, avant même leur décision, le pays s'est prononcé. Euh, le président Ouad a été élu en 2000, réélu en 2007. Il a fait ses deux mandats. Donc il ne peut pas envisager une troisième candidature, un troisième mandat dans le cadre de la constitution actuelle du Sénégal. Alors si maintenant le Conseil, malgré tout cela, venait à accepter sa candidature, euh, je pense qu'il contribuerait à créer les conditions d'une déstabilisation de notre pays. Évidemment, pour qu'on n'en arrête pas là, pour que le Conseil lui-même ne soit pas euh, mis dos au mur, que le président lui-même sache raison garder, qu'il finisse son mandat le 26 février et qu'il passe le témoin, qu'il cherche un candidat dans son camp, il, il lui est loisible, et qu'il sorte par la grande porte. yéen a ko déggandoo ñu ànd ak moom ca vaar tegal leen lam wax le peuple souverain départ sax damay foog si ak ma rek sama ki weccoowuñ ko parce que duggul pale rek ñu weccoo ko muy benn ñu ànd dem place de l'obélisque fukki nit ak benn ñàkk seen bakkan ngir lan xeex troisième mandat bu Abdoulaye Wade ku ci gënoon a ràññeeku di Mamadou Diop yàlla na ko yàlla xare aljanna loolu yëpp askan dal ko nga gëmloo loolu sénégalais yi une nouvelle république lu ne nga di ko wax sénégalais yi gëm la ne dama leen xam xam leen moo tax soo xoolee vaar yi leen di génneel yépp lu ci ëpp man man maa leen piégé 2016 maa leen piégé 2016 posé leen question na leen est-ce que sept yi da cee bokk walla bokkul ñu ne ma ci la bokk Seydou Gueye ci la bokk waaw xale nguy njaay ne changé wun

moo nekk si xibaar yi fan yii yëpp dégg ay coow mooy loo xam daf ma jaaxal sax ndax day mel lu xiinul rek xëy taw wax joo xam ni kenn xamul fu mu jógee ak lan moo ko tax a jóg ndax réew mi jàpp naa ni démocratie la buy dox 2016 man ma proposé askanu Sénégal révision constitutionnelle bo xam ne dama ni mbirum mandat yi dafa wara jeex dak ñëpp japp ne réew mi kenn mënatu fi lu mandat dañ ko mu ne peut faire plus de deux mandats consécutifs xanaa kay ku jàng tubaab boo ko firilee loolu war ne indépendamment euh, référendum loi 2016 wala loi 91 dañu ne mandat bi juróomi at la benn yoon lañ ko mën renouveler muy donc boo ko renouveler mandat ñu yokkaat ci ne de toute façon ken mënul def lu ëpp ñaari mandat yu tegale donc loolu la constitution bi wax donc loolu leer man maa ngi sama benn mandat boo xam ne bu ci yàlla àndee 2019 lay jeex ci coobare sunu borom ak bëgg-bëgg Sénégalais yi bu fekkee ne jàpp nañ ne liggéey bi ñu sa sumb ñu ngi koy teg ci yoon am nañu seen kóolute dina renouveler mandat boobu 2019, su boobaa man pare naa ci

waa keneen la ñu ndax munoo def lu ëpp ñaari mandat yu tegle waaye nag intellectuel yi dañu bëgg loolu jàpp fii interpréter fële ku nekk wane xam-xam ku nekk wane ne yow yaa mën a indi lii ak laa loolu yëpp lu baax la mais vraiment damay ñaan daal ñu bañ a di engagé réew mi ci loo xam ne énergie bu bu bu ñuy perte la amul ñu njëriñ en mii de jàpp naa ne mbiru ñetteelu mandat dinañ ma séentu fépp ba mu des si mbir moomu. loolu dama bëgg ñu wax mu leer te mu mu yem fi donc maa ngi sant ñëpp ginnaaw bu ma sante sama nattangoo yéen a ko dégg <laughs> nee na koy seetlu ci troisième mandat doo ko doo ko ci fekk léegi waxuñu troisième mandat dañuy jéem a euh, foye sunu xel yi di wax ay deuxième quinquennat deuxième quinquennat ma gis ay Aïssata Tall Sall vaar non on parle de deuxième quinquennat amul kenn kuy kilifa ku ko ñemee wax dëgg na ko eh président Macky Sall yaa toogoon fii wax lii ak lii ak lii sénégalais yi ba nga ko waxee ba noppi te ñaari mandat mat na lii yëfu góor ak garmi piir mooy ah réew mi yor naa ko ñaari mandat bu la neexee nga tànn koy préparer waaye naa organiser élection yu mucc ayib ba ëllëg maam way wu rafet waaye duñ def loolu teewul am na ay imam ñu ñeme wax dëgg su ñu mënee seetaan imam boobu nga xam ne wax na coow li yépp ci Sénégal lu ko indi ñu déglu ko dama bëgg na gaa yi ngeen déglu ko bu baax li muy wax lu am fulla la lu am fayda la lu am fit la aussi ñu déglu li coow li di bari bari leen rek a ko waral dañ koy wax de muy njiitu réew moo xam ne aw askan ma ko fal jox ko ñaari mandat mu tok ba ñaari mandat yi jeex farandom yam andalon nga xamni ñom la bokkal di liggéey taxaw bu ko forcé ci nako ko benen mandat ci lo xamni yoon daf ko ko téré ñepp xamni nañ yoon daf ko ko téré yemuñ ci doli loko benen mandat waye ñinga xamni sax dañoo wara bok nga xamni ñom ñoom yam tëriwul ñu bok ñu ne li ñun mun leen fe bokki ngir lan préserver sa tax nga ne xañ ñi ba ñom duñ mëna bok ndax mo man fe sax du ko fi ba faaw yi ko wax wax nañ ko ko wax nañ ko wax ne lii mu nekk du yoon askan wii nga xam ne ñoom lañuy dóor ay gaz lacrymogène ci mbedd yi di leen toroxal di leen torturer di leen massacrer ñooy askan wi nga xam ne démb ñoo àndoon ak moom doon ko xeexal di ko xulool seen deret di tuur ñu rey ci ay bakkan fukki nit ak benn faatu nañ mu door a falu mbokk yi dama ne tey jii waru waru fee yëkkatiwaat benn fitna boo xam ne dana jur ay nit di faatu ndax ginnaaw moom njitu rew mi fi nekkon ba mu koy xex len rek taxoon ñu diko xex moy dañu bañu mu def ñettelu mandat ndax yoon mayu koko ba fukki nit ak ben faatu ci waaw mom ndax warna xol ñu toog ba heure bi mu wara a aw nit ne ko danga bëgg nga wat ba fitna wara judd wat ci rew mi lool dañ ko ko wax nañ ko ko wax jeexal na na bayyi nit ñi ku bëgg bok ñu bayyi la nga bok askan wi ñoy tan bu ñu noppé ñu seet kan ñu sop ñu tan ko mu dem ciow du am fitna du am ku ko waxul lii rek waxu ko li nga ko war a wax lenn rek am muy nga xam ko ban koo wax wax ko nga xam ko ba noppi ragal ko wax noppi waaye lii rek mooy dëgg mbokk yi wa in amilta bi ma yarda ilaha wa in xalafta fannaaru bu fekkee ne jëf nga luy waral boo dee am boo demee am kërug taranga boo demee daa fekk kërug taranga waaye wa in xalafta fannaaru koo xam ne jëf nga loo xam ne day tax boo demee doo am xéewal ci yàlla boo demee sawar rek nga fay fekk mbokk yi kon ñun duñu ñu coupé duñu ñu coupé tëj duñ ñu xuppe ay dóor mbokk yi bàmmeel la gën a xat kaso du ñu xuppe ay dóor ndax dóori yàlla ko gën a metti sama moom gën a ragal kenn duñu xuppe dégg ngeen kàddu yooyu nga xam ne imaam bi ñu ngi ko sëriñ Moor Mbay imaam yëkkati na ko waa amul benn kilifa diine bu boo xam ne war naa mën a yëkkati kàddu yi dajale Macky Sall mu ñëw mu taaj mu wax ko ko mu dégg ko balaa réew mi di tàkk amul kedu ko meuna def té nak amna lu xew man képp ku ma nangul ne Macky Sall warna am kilifa nga ne ma Macky Sall warna def 3e mandat dama lay wax na ah bi dafa melni da nga daganal ci l'islam wax ba paré sey wax woro ngeen baal ci kaddu bi parce que sëñ almaxtum moo ko doon wax sax nee na bàkkaar bi yàlla gën bañ mooy fen mu ne yàgg naa leen ko di tegal nee na bàkkaar bi yàlla gën a bañ mooy fen nee na saa leen fenee aras day yëngatu saa buñ fenee aras yëngatu saa buñ fenee aras yëngatu man kon kon ne aras bu yëngatoo ñu ne malaaka yi dañuy xëm man leen ñu ne kon Sénégal malaaka yi ci coma lañ nekk duñ yeewu mukk ndax fi sport bu fi gën a rëy mooy wax mu dañ wax du mengo ak say jëf lool moy deug kon nan la mëne ne kilifa diine boo xam ne xam nga alquran ak lépp nga dégg Macky Sall lim la wax fii lim la lim wax fii ñaari mandat yi tey bu bëggee wut troisième mandat nga bëgg ko daganalal yow kon yow ci sa biir kilifa ak diine yaa ngi koy nangul ne ko mën ngaa yëngal aras man ngaa xëmloo malaaka yi te dara du la ci fekk loolu nag suñu maam dabaax am na lu ñu ci doon wax ne lu waral loolu di ñaax doomu soxna yi bu ñu nekkee ci réew ni war a taxawee ñu déglu suñu maam da baax wax yu am solo jooju mu ñu dañ ta wax doomi soxna yi fi nakk bañ a falsifié ahadis yi ak ayat alquraniya waaye doomu soxna yi nag nañ seetlu seen bopp nag bañ a fab aaya yàlla yéen xadisu yonent bi di ko firee nu leen neex ngir ragal gouvernement bi ngir ragal nguur gi ak ragal ñi lay jox chèque ba ak ragal léegi tey nga wuti ci ñu xalaat dootu la may bopp mel ne mag ñi liggéey yu ñu wala ñu fi nekk duñu borom yi xam-xam nit du tuutal ba Dakar Matin jéem a ragal yàlla du jéem a ragal yàlla te topp ko te topp yàlla te di waxante dëgg te di waxante dëgg te ànd ci dëgg te ànd ci dëgg dëgg dëgg di wàññi wërsëg di wàññi wërsëg du tax a dee du tax a dee sa dee sa dee jotul te itam kat yàlla soxla na ku ko waxal tey mais yàlla kat soxla na ku ko waxal ñi mu jox xam-xam ba noppi. ñi yàlla jox xam ba noppi. ñi mu joxul xam-xam waxuma leen. mais ñi mu joxul xam-xam waxu waaye yàlla tànn la ci sa biir sa biiri bopp. waaye yow yàlla tànn la ci sa biiri bokk tànn la ci saw xeet. tànn la ci saw xeet. abal la ci meloom yi benn. abal la ci meloom yi benn. boo xam ne dana la tax a tedd. boo xam ne dana la tax a tedd. teg la ci kanamu doomu aadama yi teg la ci loo bëgg ñu defal loo bëgg ñu defal la ko. loo wax ñu def loo wax ñu def ko. doonte li du dëgg sama borom jox la boobu sama borom la boobu ceeb. teranga bi ni mu teranga bi ni mu daj. nga jënde nga jënde ko. sa bànneexu bakkan sa bànneexu bakkan wala lu neex wala lu neex nit. wala wala ragal. ragal ba ba doo wax dëgg. doo digle dëgg doo digle dëgg. doo santaani dëgg doo santaani dëgg. lépp lu ñu def lu ñu def. yàlla bañ yàlla bañ ko. nga ànd ci nga ànd ca. mu neex mu neex la. ngir sa bakkan ngir wala lu neex wala lu neex ku la neex. doo dara doo dara. te loolu rek a xew ci jamono. suñu maam da baax yal na nu yàlla taas ci leeram ak ci barkeem daanañu wax lii léegi nag ndaw ñi lay wax ak foofu laay jeexale réew mag du ko defar mag day gidda di kii c'est l'heure de la prise de responsabilité des jeunes affronter la situation bi ak lu mën a demee parce que il est temps que nous reprenons le ce pays teg ci yoon ci institution yi mu normal mu premier combat quand kan suis président en 2024 jëm am dañ koy par la force yokkal ko yeneen institution yi corps de contrôle ce des combats mais à l'heure actuelle à l'heure actuelle il faut que nous jël suñuy responsabilité foo mënta toll te li ci doy waar waaw xale yi dañ leen di marcheloo ah ñu rey leen mais da nga war marche rek ñu rey la walla ku marche dañ la war a rey ah loolu logique bi ku marche dañ la war a kilifa diine bu fi am dom bu nek ci biir kaso di nga ak ci président de la république pour nga libérer ko man ñu ngi téye sama passeport dama warona dem def ben consultation sen bon yi sax ñi ngi leen di jox passeport diplomatique gel yi sax trafic de passeport diplomatique gisoko fi mais du tax ñu ñanki fi lañuy tok fi lañuy tok de le combat en charge pour le Sénégal jaral nañu ko bu pas ba amatuñu nak ñu tok japp suñu sa mais li yoon ba nekk dëgg di gañ nañ politiciens politiciens yi laa jël leen seeni responsabilité gis nga ñooñu di leen ko wax weer wu ne am na enveloppe bu ñuy laal wala seen seen seen amuñu doom juy am na doom yuy gañe marché état